alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci xéewalam yi nga xam ni mënuñu koo fekk ñu ngi koy ñaan mu julli ci suñu yeneen ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi din ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla sax ci loolu ba dee fekk leen ca ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca lu ngeen di wax mu nekk wax ju jub kon yàlla dana leen baal seeni bàkkaar yéwénal seeni mbir ca ku bëgg a texe àdduna ak alaxira da ngay nangoo topp yàlla ak yeneen ci yàlla sunu xutba tey mi ngi nar a jëm ci musiba yi nga xam ni bàkkaar dana koo teg doomu aadama doonte ni nit yi tey bari na lu leen yittee lool ba la nga xam ne mooy mooy jeexitalu bakkaar bokkatul du ñuy sóoraale ci seenu dund am na ci ñu bari ci ñoom it jàpp nañ ne am na ñeneen ñu leen fegal loolu ba daanaka lu leen neex rek dem jaami yàlla yi jaamu yàlla it lu leen ci neex bàyyi waaye mbokk julit xamal ni amul benn musiba buy wàcc ci àdduna wala musiba buy dal ab jaam yowmal qiyaama lu dul ne ay bakkaaram ñoo ko ko yóbbe suñu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne xeet yi fi jiitu woon yépp nee na ku nekk ba mu lay alak sa bakkaar ya nga def moo tax mu alak la fa kullan axasna bi zanbi la yàlla wax ku nekk ak bakkaaram moo tax mu alak ko keroog bi nga xamee ne nii ma ngay alak xawma nuux di leen yónnee ndox seen bakkaar yaa tax ba muy alak xawma huut di leen yónnee ngelaw la seen bakkaar yaa tax ba muy yónnee yoox ga ca samuud seen bakkaar yaa tax keroog bi muy labal firawna ay bakkaaram a taxoon bi muy wax suuf na mëdd xaaruun ay bakkaaram ñoo taxoon waaw ñooñu ñooñu jiitu woon suñ borom alal leen ngir seeni bakkaar waaye ñu ñëw seen gannaaw nag suñ borom yàlla ne man maa alal ñi fi jiitu woon maa jël ñeneen toppal seen gannaaw fa ma jaar ak ñu jëkk ña rek fa lay jaar ak toonkat yi kazalika nafalu bil mujrimin képp koo xam ne jalgati nga ndigali yàlla ña la jiitu woon yàlla alal leen suñu borom yàlla ci maandu teem dana la teg lam tegoon ñu jëkk ña looloo tax ba mbokk julit ñun ñépp nañ bàyyi xel ñun sunu bàyyi aadama alayhi salaam yàllaam ko dëkkaloon ca ajjana mook soxnaam sa Hawa lan moo leen jëlee ajjana mooy benn bakkaar bu ñu def suñu borom ne leen garab gee bu leen ko jege ñoom ñu dem lekk ca garab ga loolu moo indi njabootam tey ci kaw suuf ñu jóge ajjana ñëw ci kër gu jafe gi nga xam ni coono kese la soo amee sonn soo ñàkkee sonn booy nekk buur sonn boo dul baadoo la sonn waaye iblis ki nga xamee ne moo jiitu woon aadama gënoon koo yàgg ci jaamu yàlla ana lan moo ko yóbbee musiba bi ko dal mu ànd ak rëbbum yàlla ba ila yumi diin nar a jiite waa sawara mbokk moom mooy bakkaar ca boo seetloo ñaari bakkaar yooyu mooy aadama ak tere lañ ko waxoon bu mu ko def mu def ko iblis ndigal lañ ko waxoon mu def ko mu bañ koo def loolu mu lay won lii mooy bakkaar heure boo bàyyi ndigalu yàlla def nga bakkaar heure boo defee tereb yàlla def nga bakkaar bakkaar boobu di am conséquences yu garaaw yu muy def ci dundu doomu aadama bokk na ci loolu day lëndëmal xol day tax ba xol bi fees ak bakkaar xam-xam bu am njëriñ te mooy xam-xamu sharia du ca mën a dugg loolu di mbir bu ñuy war a bàyyi xel sunu borom yàlla subhanahu wa taala xam-xam ak leeram la xol ba mu koy tàbbal day doon xol boo xam ne xol bu set la da ngay gis ku mel ne Ali ibn Abi Talib daana wax ne xam leen ne day amul balaa buy wàcc ci kaw suuf ngeen gis ko muy catastrophe mu wàcc ci bakkan yi wala wàcc ci jaww ji wala wàcc ci fu mu mën a doon lu dul ne bakkaari jaam yi ñoo ko waral ca loolu it la koy dëggal ci alquran mooy la suñu borom yàlla subhanahu wa taala wax wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir lu leen dal ci musiba mi ngi jóge ci li ngeen fàggu ci ay bakkaar doonte ne la yàlla bale moo gën a ëpp ay yow mbokk julit aka bari lool koo xam ne yàlla xatal na wërsëgam dindi ca barke ngir ay bakkaar loolu moo taxoon ko mel ne xasanul basri ku masaan ñëw di ko jàmbat ay mbir ay xat-xat daf la daan wax tuubal jéggalu say bakkaar bari la def istigfaar ba ñim daan toogaale sax na ko waaw yow képp ku ñëw amul loo koy wax lu dul tuubal baril def ay istigfaar mu ne loolu jëlewu ma ko sama bakkan maa ngi ko jële ci kaddu borom bi suñ borom moo ni fa qultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سنبرم يا الله موخ كلام من ينن يا نوح أي ينساو خير جيجلو لن سين برام kon dana leen baal seen mboole mi bakkaar mbokk heure boo tuddee tub bu sell yàlla baal la sa mboole mi bakkaar dana yónni asamaan mu tawal leen taw yu barkeel dana leen dolli ay alal dolli leen ay doom ca dana leen may ay dex yuy daw ci seen suuf mbokk loolu boo ko gisee man ngaa wax ni waa yéefér yi dañoo ëppale alal na am mbokk yéefér yi ëppale alal waaye dafa am lu bari ak lu barkeel alal ju bari yàlla dana ko jagleel yéeféer bal suñu borom nee na su ma bañul woon nit ñi weddi bépp yéeféer danaa ko xëpp ci alal loo xam ne dana mën a tabax këru xaalis man koo décorer lu ko neex ci or nee na yërëm julit ñi moo tax defulul loolu yéeféer yi kon bu ñuy wax wërsëg dëgg mooy wërsëg wu barkeel woo xam ne dana la jegeel sa boroom wërsëgu barkeel boo xam ne nii dana tax jaami yàlla yi nga def ci ñoom lu baax ba loolee jur teraanga seen diggante amma bépp alal boo xam ne dalay soril sa boroom bépp alal buy tax nga dew ci jaamu yàlla yi bépp alal bu tax ñu génn xeet même bu doon ay milliards loolee mbokk musiba la boo xam ne bu yàlla wàcc ci yow loolu tax suñu borom subhanahu wa taala keroog bi muy wax ni waa dëkk bi day bu ñu ragaloon yàlla danaa ubbi ci ñoom ay xéewal xéewal yi lan la tudd mooy danaa ubbi ci ñoom lu barkeel walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard su waa dëkk bi ragaloon yàlla ma ubbil leen barke yi asamaan ak suuf amma suñu borom nee na nag maadaama defuñu la nga xam ne moom laa leen santoon ca laa leen jàppee ca la nga xamee ne nii moom la ñu nekke woon ca moo di ne ne indil leen ay fitna même bu dee ne alal jaa ngi tasaaroo nday joorob càmmoñ mbokk bokk na loo xam ne bakkaar da koy def mooy ay bakkaar day tayalloo doomu aadama bi ci jaamu yàlla loolu moo tax ba da ngay gis ne lu bari ci ay doomu aadama xam nañ lu baax waaye jóg def ko day jafe ci ñoom am na koo xam ne mu soloon teneem entraînement dem daw dix kilomètres loolu moo gën a woyof ci moom fajar jot mu jóg def ay jéego dem ci jàkka ji lu waral loolu mooy yàlla subhanahu wa taala moo ko diisal ci moom ngir bakkaar ya nga xam ne moom la nekkee moo tax julli gi sunu borom mu ne innaha la kabira illa ala alxaashiin julli lu màgg lu diis la lu dul ñi nga xam ne ak ragal yàlla dafa nekk seen xol amma bu bàkkaar feesee ci yow loolu day diis ci yow ca it loolu mbokk jurit mooy la nga xam ne mooy bàkkaar dalay fekk ci jaamu yàlla yombalal la ay ñaawteef loolu tax lu bari sunu xal yu jigéen yi génn sol sa benn fiso bu dang sol sa benn o daal di indi karaw ya nga xam ne ma nga daanu ca gannaaw sa dënn ngi feeñ nga génn na gàddu sab saat ku mel nii bu waxtu julli jotee fooy julli mooy décor boobu nga melal da ngay gis ne jeexital bi nga xam ne nii daf ko am ci yow loolee kon bokk di mbir boo xamee ne nii ah doomu aadama yi bàyyi ci xel dana tax ñu gën ko daw ngir la muy jur ca gannaaw loole mbokk julit gis nañu ne bokk na luy musibay bàkkaar mooy boo ci yàggee dootoo yëgati ne lii bàkkaar la da nga koy dem ba soo fantal ko te loolu nekk musiba bu rëy rëy yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet yépp dañ leen baal yowm alqiyaama bam des ñiy siiwal seen bakkaar ñu ne ko ah yow mi yàlla yu ne ñooñu mooy ñan mu ne mooy ki nga xam ne defoon na bakkaar fu ko kenn yëgawul yàlla suturaal ko waaye mu dajeeg nit ñi naan leen la ma def biig la ma defoon jamonoy tel loolee da ngay gis ne mbir bi garaawul ci moom ndax bu dul ko ragal yàlla la heure bu xelam demee ci loolu day tiit toroxlu ci yàlla waaye du dem mukk di ko nettali nit ñi te loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax soo demee ba sa ker sa jeex léegi moom loola neex defal mbokk da ngay gis ne bakkaar mi tax nit ki war koo moytu day jur ak toroxtaange ci doomu aadama suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ki yàlla toroxal kenn mënu koo terale ci bala nga xamee ne lenn ci borom xam-xam yu jëkk ya daanañ wax man day daanaa def benn bakkaar bakkaar boobu su ma nibbisee sama kër sax mu feeñ ci sama njaboot wala su ma waree sama gileem wala sama fas mu feeñ ci comportement am ca loolu ngir conséquence su bakkaar boobee ca it mbokk julit bakkaar bi nga xam ne da nga koy def ndax da nga ko mën a tere keneen maa ngi leen di seedeel ne maa fekkee fii ci géejawaay benn góor boo xamee ne nii doomam bu jigéen dafa indi faram ci kër gi mu daal di koy dàq xale bu jigéen bi na ko amoo droit dàq sama far barki démb nga fi biiral sama morom diw mu gàddu yet ne bu duggee ci kër gi mu rey ko loolu man maa ko fekk histoire boobee bokk julit lu waral loolu soxna xale bu jigéen bi comporte woon noonu mooy yow bu la yàlla nattoo ba nga def musiba boobu ba pare nan ngay waxee su doom bu jigéen nag léegi bul defati loolu loolee mbokk dafay am jeexital ci lépp lu mu mën a doon góor gi paa bi tux cigarette ndax mën na ko tere njabootam kii pii bi ndax mën na ko tere njabootam soxna si nga xam ne day dem di jaay boppam ndax mën na ko tere njabootam loolee kon di mbir yoo xam ne ku nekk ci ñun war na ci jéem a xool xalaat ci bàyyi ci xel mbokk dirit bakkaar ak a neexoon mu yem ci yow waaye mbokk bakkaar gaaf la moo xam ne day jeexital ci société bi yëpp gis nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ki day bu dee imma mu doon ku ñu noppalu ji wala mu doon ku ñuy noppalu ci moom mustarix wa mustaraxu minhu kiy noppalu ji muy jullit bi nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wërsëgaloon na ko mu nekk ci àdduna di jaamu yàlla mbokk jaamu yàlla teewul a nekk ci ay xat-xat teewul am ay jafe-jafe heure bu deeyee yàlla teggil ko mboole mi jafe-jafe mboole mi tiis mboole mi naqar mu dem noppalu ji yal na yàlla boole ñu ca ñooñee waaye yonent bi alayhi salaam nee na itamit ki nga xam ne day nekk ci kaw suuf def bakkaar heure bu sedd bi taree heure bu ay feebar wàccee heure bu mbay mi baaxul heure bu njéeréer yi ñëwee heure bu catastrophe bu mu mën a doon bakkaar yooyu moo ko waral looloo tax ba bis bu deeyee yonente bi alayhi salaam nee na yastarihu minhu l ibad wal bilad washajru waddawaab ab saay saay bu deeyee nit ñi dañuy noppalu waaye dëkk bi da ciy amee jàmm garab yi dañ ciy kontaan daaba yi di xar yeeg mbaam yi yëpp dañuy kontaan ci dégg waa jooju xadis boobu muttafaqun alayhi la ay yéen mbokk julit da ngay gis ni lii nga xamee ni nii moom mooy sax ci ay bakkaar bokk na loo xamee ni nii daf koy jural doomu aadama bi mooy sunu borom yàlla subhanahu wa taala fàtte ko ci ay xéewalam heure boo demee ba fàtte sa borom xalaatatoo lu mu daganal wala lu mu xaraamal sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ah nii la leen yàlla subhanahu wa taala di fàtte ba nga xamee ne nii xéewal yu baax yi muy wàcceel ay jaamam yow da ngay gis xéewal yooyu doo ca bokk ca bokk na ci loolu mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ñu doon wax képp koo xamee ni nii da ngaa nuur ci yenn bakkaar yi sooy ñaan yàlla du nangu say ñaan mu ne xoolal waa ji nga xam ne me nga nekk ci biir tukki ci ki jukki buy ñaane yàlla may ko mi ngi yëkkati ay loxoom ci kaw asamaan te yàlla ku yëkkati ay loxoom jëme ci moom wuy la ma nga naan yaa rabb yaa rabb ay sama borom sama borom ci amul kenn kuy ñaan di wax yaa rabb yaa rabb lu dul yàlla wuyu ko waaye li mu lekk mi nga xaraam li mu sol mi nga xaraam mi ngi xëy lu xaraam kii lan la ko yàlla di wuyoo lii mbokk kon muy wane ne bakkaar loolu bokk na ci conséquence am yu garaaw bokk bakkaar yu bëri day tax ba heure boo nekkee ci tiis doo am ak dal keroog ba ñuy xare uhud suñu borom nee na ña dawoon ca sahaaba ya bakkaar yi ñu fi indaale moo leen yóbbu innama sal zallahum mi ngi la leen wàcce mooy la nga xamee ni nii moom lañ defoon ci ay bakkaar loolu it moo tax ba léegi la ñu gis benn waay benn fitna bu daw dal ci kawam mu xalaat ba am dépression am na ci ñoo xam ne dañu far sax xaru ñee dem di làqu ci drogue lan moo ko waral bakkaar yi moo nasaxal la nga xamee ne mooy seen ngëm amma julit moom mooy ko yeneen bi alei salaam doon wax ajaban li amri mumin inna amruhu kullahu lahu xayr julit bi nga xam ne moytu na bakkaar gëm boroomam asamaan bu daanu woon ci kawam sax du ko déranger loolu lu tax mooy ngëm ga nga xam ne moo nekk ci moom amma mbokk bakkaar bokk na ci musiba yu garaaw yi nga xam ne da koy def doomu aadama mooy bu yàggee day muur sab xol complètement waxoon nañ leen sànq bakkaar bi nga sax kàrt la njaaloo la lu mu mën a doon te bàyyiwoo ko bu yàggee dootul doon problème ci yow waaye bakkaar it bu dajuloo sa xol suñu borom nee na day muur sa xol kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun te loolu mbokk jurit da ngay gis ne ba yàggee mooy dem ba yóbbu doomu aadama bi ci ak kéeféer mbokk bakkaar mi ngi nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne rëbb na tooñkat yi ala laanatullahi ala zalimin te tooñ boobu mbokk ñaar la tooñ ga mooy lan mooy tooñ ki nga xam ne mooy sa borom ak tooñ ki nga xam ne mooy sa morom tooñ sa borom lu grave la bokk na ci loolu bokkaale ak sa borom bokk na ci loolu sax ci ay bidaa bokk na ci loolu lekk riba wala nekk ci carte gi waaye mbokk julit loolee la nga xamee ni ni moom lay grave grave bokk na it leneen lu gën a grave mooy ngay tooñ say moroom say moroom yooyu ngay lekk seen alal tuur seen deret yàq seeni der loolee mbokk da ngay gis ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax amul benn bakkaar bu yàlla di gaawe jox ko mbugulu adduna avant mbugulu alaxira ci lu mel ne ak beew ci kaw nit ñi te mooy di leen tooñ ak la nga xam ne mooy dog la nga xam ne nii mooy ay ak mbokk yii mbokk mbir la yoo xam ne nii dana tax na am nga góorgóorlu sa kemtalal kattan moytu bakkaar yi yàlla xaramal ci yow waaye moytul bakkaar yi sa digganteeg say borom sa digganteeg say morom ndax boobaa ñaari mbir la tooñ nga sa borom ndax waxoon na la bu tooñ sa borom ba pare nga wëlbati ko tooñ sa morom loolu tax kenn ci borom xam-xam yu jëkkee ñu ko doon wax Sufyaanu Sawri daana wax ne day nga dajeeg sa borom yàlla ak juróom ñaar fukki bakkaar yoo xam ne sa digganteeg moom la moo gën a woyof nga dajeeg moom ak benn bakkaar boo xam ne da nga caa tooñ ab jaamam lii di mbir boo xam ne ku nekk ci ñun war cee bàyyi xel mbokk julit rawatina nag suñu mbokk jigéen ñi yonent bi alayhi salaam mas na leen xutba mu ne gis naa ne yéen a ëpp sawara kenn ci ñoom jóg na ko yom yàlla yónni la waral loolu mu ne yéen day da ngeen a bari di suul njëkk gi nga xam ne dañ leen koy defal ay seeni jëkkër bis nga am nag moom problème na ko musama defal dara ci nit da ngeen a bari di génn wax ju ñaaw ci seen gémmiñ yi bari lu ngeen di rëbb maa ngi leen di dénk ngeen bari istixfaar maa ngi leen di dénk ngeen bari di génn ay sarax loolee kon mbokk da ngay gis yonent bi alayhi salaam li tax mu ne jigéen ñi dañuy dem sawar yépp mooy li ñuy def seen digganteeg seen moroomu doomu aadama yi loolu ndax ba mbokk julit gis nañu ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ni nii wa yowmal qiyaama nee na képp koo xam ne da nga mooy yàlla la mu rëddoon ni def ko nga bañ koo def bul def nga def sawara moo lay xaar bu ànd ak toroxtaange yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ñu ci beneen xadis bu tiitlu mu ne sahaaba yi ndax xam ngeen ci perte ci yéen ñu ne ko ah yow mi yàlla yónni ki perte daal kiñ ci xam mooy koo xam ne dem na ba amatul benn marchandise bu mu jaay amatul benn dërëm ci poosam yeneen ci bari sam ne leen déedéet ñi perte sama xeet bi mooy ñi nga xam ne biñ ñëwee yowmal qiyaama julli yi mat na koor yi mat na zakat yi mat na waaye nag lekkoon na aqu kii tuuroon na deretu kii yàqoon na deretu kii jëwoon na kii fenoon na kii ila axiri ñooñe bu ñu ñëwee amul lu mu leen di fayee lu dul ay tuyaabaam ñiy jël ci tuyaaba yi joxe jël ci tuyaaba yi joxe am na ci ñenn ci sama xeet daan dem ba seen tuyaaba jeex ca ñentoo ñoon jeexul su ko defee ñooñee ñu dajale leen jël seeni bàkkaar xëpp ko ko mu mujj dem tabbi sawara gannaaw ba julli ya matee koor ya matee aj ya matee waaye gis nga la koy mujj muy sawara hadis boobu muslim moo ko solo mbokk julit li mooy lenn ci conséquence yi bàkkaar mën a am doomu aadama war koo daw ni muy dawe gaynde te wax nañ leen ko ci biir xutba bi bàkkaar mooy sàggane bépp ndigal ba bawoo ci sa borom subhanahu wa taala commencé ca jàpp ak jullee koor ak zakat ak ila axiri bàkkaar mooy def lépp loo xam ne xam nga ne sa borom yàlla da ko araamal lii mbokk da ngay gis ne moytu ko moo lay boole ci ñi ragal yàlla ñi yàlla di defal teraanga adduna ak alaxira jangati ko mooy xatal sa dund ci adduna xatal sa dund ci bàmmeel ca boo dee bu la yàlla jéggalul nga tàbbi sawara yal na yàlla dox suñu digganteeg ñu koy moy yal na yàlla wërsëgal ñu matal la nga xam ne sant nañu ko yal na yàlla dox suñu digganteeg lépp lu xaraamal ci ñun yal na yàlla bëggloo ñu lépp loo xam ne njum la ak lu baax te taaral ko suñu biir xol yi yal nañu yàlla bañ loo lépp loo xam ne nii ak beew la ak jeng ak la nga xam ne ni mooy ay bakkaar allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين